kon wane na ni sénégalais yi am nañ pas-pas ci li ñuy def am nañ taxawaay ci li ñuy def kon nag maa ngi nuyu kilifa yi fi daje yëpp di ko teg ci loxo sunu coordonnateur Ababacar Mboup mu jàllale ko ci ñëpp ndax mu matale ndaxte temps bi xat na te mënuñoo lim waaye damay wax ci turu ànd sàmm jikko yi nga xam ci laa bokk waaye di wax ci turu jàngalekat yi nga xam ni GV dafa ñëw ak délégation ñëw wax Sénégal ni ñun li ñuy sàkk mooy ñu criminaliser ngóor jigéen ci Sénégal bu ko defee képp ku fi def yëfi góor jigéen ñu tàllal sa nuunara loolu la Sénégalais yi bëgg parce que nag réew ñun ñoo ko moom président Macky Sall ko ci ay waajuram doonu ko ci ay maamam kon amul droit kenn di fi def loo xam ne teguñu ko ci yoon kon li ñun Sénégal li ñuy exiger mooy képp koo xam ni jàmm moo la ñor Sénégal moo la ñor nañu tere lii nga xam ne moom la député yi bëgg a def maanaam jaay ñu doole loi bi ni ñun proposition de loi am nañ droit def ko ñu dem def ay tappale daal di rejeté proposition de loi bi alors que kenn mooy leen ko lay na ñun sénégalais yi nañ leeral document bii ma yore na ko presse bi génn document bii ma yore Macky Sall nee na góor jigéen du law Sénégal léegi li mu wax da koo wax pour nelawal sénégalais yi ndaxte école bi fa lañ bëgg a jaare comme fa la tout tànk yi nekk ñu daal leen di waajal pour ñu nekk ay góor jigéen document bii ma yore mi ngi tudd genre et inclusion dans les pratiques de classe président Macky Sall moo ko bindul ministère de l' éducation nationale Mamadou Talla ñu ànd ci ak plan international pour ñu lawal ngóor jigéen ci Sénégal pour ñu lawal ngóor jigéen ci classe yi kenn du ko fi nangoo kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg kon jàngalekat yi document bii ma yore képp ku mu ñëw sa école na ko xotti te sànni ca àll ba parce que góor jigéen du law Sénégal liñ bëgg a wax nag falaay daaneel falaay daaneel sénégalais yi bu dee dun li ñuy wax dëgg la ci ñun